rahmatullah Mbàkke maa ngi lay ziar bu baax euh, dama la doon wax rek déglu naa waat euh, li ma wax démb ci Walfajri ci YouTube bi la woon ak euh, vidéo bi nga xam ne moom la sëñ Abdou Karim defoon tama ko doon leeral dama cee juum nag dama cee juum njuumte loo xam ne njuumtel doomu aadama la rek mooy ñàkk a ñàkk a ñàkk teewlu teewlu gu leer li ko def mooy sëñ Abdou Karim da doon nettali digganteem ak sëñ Modou Bousso Dieng ci ab euh, ngan bu Abdou Diouf doon def Touba ci sëñ Modou Bousso Dieng euh, xam naa nag li ma juumloo mooy diggante sëñ Abdou Lahat ak Abdou Diouf moom yàlla daa dogal seen yi jege yoo lool ba boo nee nganuk Touba rek boo teewluwut da ngay defee ne sëñ Abdou Lahat la woon. ma di ko leeralaat waxi sëñ Abdou Karim wax ne sëñ Abdou Laat la sëñ Muudu Boussa Dieng la abdu Diouf doon gane si mu wax sëñ Muudu Boussa Dieng euh, noonu ma ko waxee rek te bànd ba dama cee juum maa ngi koy maa ngi la koy jéggalu nag bu baax Mbàkke ak euh, sëñ am setu ñoom ak maanaam di ko jéggalu daal mboolem njabootu sëñ Abdou Laat gépp rek parce que xam nga euh, njuum ca la ma jël tur sëñ Abdou Laat tudd ko ci histoire boo xam ne moom bokku ca Euh, maanaam tu turam nekku ca ma tudd ko ca loolu nag maa ngi koy jéggulu mboolem ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rawatina taalibe yeeg njaboot gi yëpp rek maa ngi leen koy jéggulu naa yàlla dafa dogal tey du ma dem télé ba waaye du ma dem télé ba waaye bu soobee yàlla su ma demee télé ba alxames ak jàmm dinaa ko leeralaat ba leer comme ni ma ko ni histoire bi demee te it incha allah dinaa ko jéggluwaat itam ba ñëpp dégg ko waaw parce que loolu njuumte la euh, loo xam ne tayu tayuma ko dama cee dama ko digluwul bu baax waaye maa ngi koy tuub daal bu baax a baax xam naa euh, bu soobee yàlla bu alxamisee rek dinaa ci ñëw bu gën a yaatu te gën a leer incha allahu taala maa ngi lay siyaaraat bu baax Mbàkke euh, tey sàkku ñaan nag bu baax a baax a baax barke bi ñu ngi leen di nuyu sëti Cheikh Abdoul Ahad <coughs> defe naa sëñ Bass Touré moo dugal moo dugal déedéet moo ci commentaire waaye sëñ Bamba Hamza moo ko dugal muy muy muy euh, vidéo bi ma gis Cheikh Bara dugal ko muy wax ci politique ba tudd Serigne Abdul Ahad wax ni euh, def daa far ba noppi digal sëñ Modou Bousso Dieng mu opposé ci pet man la ko wax waxitam ni Sëriñ Abdul Ahad jamono jooju dafa àndoon ak Abdou Diouf Sëriñ Saaliw ànd ak eh, Ablaye moom itam lépp nekk wax ju ñaaw joo xam ni ab politicien moo ko wax rek moom ab politicien la bu bëgg taaral wala bu bëgg a daganal lim nekk ak buy wane ni eh, kilifa gi fi nekk Euh, ci xelu nit ñi lay dox wane ni sëñ bi sëñ Muntaxa li tax mu far mooy lii ak doonte baatu far bi ma jëfandikoo amul waaye loolu la loolu jubloo wax rek waaye lu mel ni day day lu ñaaw loo xam ni maa ngi sàkku ci njabootu njaboot gépp ñu ñaawlu ko naqarlu ko ndax ku mel ni sëriñ Abdou Lahad bi mu nekk nga xam ni sañ nañ cee wax ndax dañ cee bokk te groupe bi ñi fi nekk ñëpp ay sëtam lañ ku xam na ni da ko delloo woon Serigne Touba dafa affiché dafa boppam affiché Serigne Touba moog Abdou Diouf mosuñoo neexoo lu dul ni bim demee ba soppiku ba nangoo taxawu taalibe Serigne Touba yi waaye nangoo taxawu réew mi te mboolem taxawaay yi nga xam ni euh, Abdou Diouf def na ko ci dëkk bi wala mu def ko ci réew mi lum ci mos def wala mu koy mos a yëkkati. dana ñëw diisoo ci ak moom bi mu demee ba xam kan mooy sëriñ bi xam vision xam xelam xam yitteem xam pas-pasam kon wax ju mel ni su su su amee euh, wala yu mel ni su amee nga toog ci sa plateau di wax di sànni di wax di sànni war nga segg la ngay wax ña ngay tudd te mooy njabootu Sëriñ Tuubaa gi war nga leen a xam ndax mm, ñoom politique ñoru leen woon li ñuy woowee politique ñorul leen woon politique woon ngir am dara waaye politique guñu woon ngir seen bopp déedéet même sëñ Modou Bousso Dieng bu bu nekkee ci biir réew mi di opposé mën naa bañ yëg ni sax maanaam Serigne Abdoul Ahad euh, far naag diw ngir nangam wala déet déedéet ak yëgoo amu ci daal maanaam ni mu waxee nii dafa mel ni complot la loolu moom dafa dafa ñaaw li wax lépp dara wéru waaye li gën a ñaawati mooy mu waxati ko ak Serigne Saliou mii nga xam ne moom itam wax na ni jamono Abdou Diouf Serigne Saliou Ablaye Wade ba mu ko xamee sax dafa yàggut far Ablaye Wade ba mu xamee Serigne Saliou dafa yàggut bi koy xam booba ginnaaw Serigne Abdou Khadir la xamante ak Serigne Saliou kon moom day xalaat di wax rek di xool loo xam ni mën naa arranger seen parti biñ nekk ak yu ni mel loolu wax ju ñaaw la. kuy xalaat di wax nag te moom léppam nii la mel léppam ay fen la yàlla yàlla baal lii moom ñaaw na trop waaw te képp koo xam ne gis nga ko bokk ci kër gi war nga koo weddi boo ko man boo ko mënee jot war ngaa wax ak moom parce que yu mel nii dafa dafa rafetut te moom lañuy jël di ko jox jox jox jox jëlaane ba dem ba sos yeneen lu ñu war a teel a dindi la lu ñu war a teel a la ndax du dëgg du yoon ba ca mooy Euh, defe naa sunu sunu kilifa sëñ Abdou Samad wax na la ko euh, mbir boo ko defee ba noppi da ngaa war a taxawalaat da war a taxawaat jël say engagement ya nga jëloon dañal ko dañal ko waaye jël sa audio ni sëñ Mourtala woo na ma nangam ak nangam loolu da cee gàtt ndax sëñ Abdou Lahad euh, li nga ko jiiñ nii dafa dafa rafetut ndax bañ nañ ko ba ñàkki caaxaan lañ koy woowee mësta wax ci kaw di wax ci suuf lum la wax mooy lam nar kon nag boo wëlbatikoo ni daf daa def ay complot mook sëñ Modou Bousso Dieng loolu wax ju ñaaw la wax ju wax ju ñëpp naqarlu la même tuumaale ngaale sax sëñ Saliou wax ni da daa sëñ Ablaat bu Moussa farfee sëñ Saliou it day farfee te ñoom ñaar benn lañ woon bañ nañ ko ba cérémonie yi ak mboolem ndaje yi sëñ Fallou daa woote sax sëñ sëñ sëñ Saliou dara wax ne bu suñu ëpp du teewee teewal na teewalel nañ ñun ñëpp keroog ba ñuy miiras euh, sëriñ bi moom moo leen fa représenté keroog ba muy jël lañ amoon ci sëñ bi bañ koy jël di ko jébbale ji sëñ sëñ ginnaaw bi la ko sëñ Saliou doo ko yëg yooyu yëpp ñooñu doonoon benn politique rek tax nga taxaw fii di leen sosal di leen kereel loolu lu mën a ñàkk la loolu moom na mujj tey nga di ko def ndax. daray àdduna jëru ko ci yow dara dara dara wax loo xam ne du dëgg ba noppi di ko jëmale ci njabootuk sëriñ Touba gi rawatina nag ñi nga xam ni seen lépp dañ ko jaay jënde ko Serigne bi seeni njureel seen lépp nga wëlbatiku di leen sasal di leen waxal loo xam ne dara du ca dëgg loolu lu mën a ñàkk la waaw loolu moom say wax moom booy waxati nanga xam fa nga koy jëmale même bu doon dëgg sax booy waxati jëm ci njabootuk Serigne Touba gi war nga ko waddu war nga ko wodd ndax man jàpp naa ni politique képp warul laa jaral ngay jaay sa ngor jaay sa diine di xalaat di inventé di wax loo xam ne lépp rek bëgg a yëkkati sa bopp ak yëkkati fa nga bokk ak bëgg a wane ni yow euh, li nga xam bari na te loolu lépp looy njortu la ak looy xalaat di wax di ko fabriqué loolu lu ñaaw la lu ñëpp di naqarlu la